bokki taalibe yi bokk yi ñuy déglu ci seen rajo Lamp Fall FM ci 97 point lëkkaloo ak Lamp Fall FM ca Dakar di ñu bàyyi xel ci Sik FM ci Mbacké waaye di ñu déglu itam ci ICAP FM e, ci Touba di ñu seetaan ci site internet yi di Assalaamy TV sunu info Mouride TV ak Touba Vision noo ngi am mbégte di leen nuyoo fii ci Madina Mbooba di dëkk boo xam ne Cheikh Mouhamadul Fadal moo ko sancoon liggéeyal fi yàlla liggéey bu rëy ginnaaw bu mu fi bàyyi ko doomam ju baax ji nga xam ne tey jii mooy Cheikh Mouhamadul Fadal ci kaw suuf yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di sëriñ aboo Baraka nekk ci dëkk bi ci ndigalul Cheikh Mouhamadul faadal ñu nekk ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab ñuy jiital ci sunum nuyoo ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te doole ak wéram. nuyu mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gépp waaye nuyu itam boroom kër gi di sëriñ aboo Baraka nuyu ay rakkam sëriñ Basiiru miy jëwriñam ak Cheikh Abdul Fatah ak sëriñ Murtada ak sëriñ Ahmadul Badawi mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu commu culture ak communication ci màggalu Kazu Rajab ñu nuyu fii ci dëkk bi sëriñ Falilu moom sëriñ Abo waaye teg ko ci loxol sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall moom sëriñ Abo moom Cheikh Mamadou Fadal mii nga xam ne moo dara jaal jataay bi mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ fallu Ndiaye mii chef de village bi ak bokk yi mu bokkal nekk Madina booba yëpp ñu fi nuyu sunu jigéenu bopp di sunu xarit di taalibeeb sëriñ Abo ne ci wanag wi di Soxna Ndey Jóob yal na ko yàlla may jàmm te defal ko tawféex. mbokk yi tey jii ñu fas yéene ànd ak yéen fii ci Madina Mbooba ngir fàttali ko jàmbaar ji sancoon dëkk bi te bu ñu demee ba waxtaan wi jeex sëriñ Fallou Ndiaye dana ñëw leeral leen ko fi ngir waxtaane jëmm jooju di Cheikh Mahmadul Fadal fas ko yéene seq ak sunu jarbaat di sëriñ Gana Messere Maxtaar di ko xam ne ñëpp xam nañ ne saa yu walbatee aw kayit mbind ma ci nekk ci Serigne Touba jëm dundam gépp mu jeexal ko ci loolu ñu fas yéene seq ak moom jataay bi ak sëriñ maam Cheikh moom Cheikh Madul Fadal mi nga xam ne mooy yore kàddug Serigne bi di kàddug Serigne Fallou mi waroon a jataay bi ngir xam Cheikh Mamadul Fadal li yàlla dajale ci moom jikko ji ko sunu borom subhaanahu wa taala jox melokaan wi mu yore. li nekk ci moom ci ay may waaye li nekk ci moom ci baatin makaarimul axlaax ji nga xam ne suñ boroom jox na ko ko waaye doon gi mu doon nag mbokkum réew mi ba waxaloon boppam ne may senegal jege gi mu jege sëriñ tubaa ba waxoon ne may Serigne tubaa loolu dana feeñ ci waxtaan wi Cheikh Mamadou faadal sëriñ Ganna ci jikkoom lañu bëgg nga ñëw ci te moom la yàlla tagge woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy turandoom wu tedd wa waaye bala ñuy ñëw ci loolu ci jikkoom nga xam ne mooy ton tomb bu njëkk bi dañuy njëkk a indi Cheikh Mamadul Fadal jamono ji muy feeñ jamono ak tur wi ko yàlla jox ak dëkk bi mu feeñee jamono ak ki ko tudd ndax loolu ci lañuy ñuy mën a xamee ne ndakate sëñ Fàllu mooy jàmm bu am réew ñàkkee jàmm buñ doon werd sëriñ Falilu rek yàlla def fa jàmm buñ doon werd turu sëñ Fallu yàlla wàcc fa jàmm te loolu dana feeñ ci biir waxtaan wi ci ay mayam yu ko yàlla jox Cheikh Abdoul Fadal bokk na di ñaareelu doomu sëriñ Touba bu góor feeñ jamono ci atum 1887 feeñe ko ca Daaru Salaam feeñit ci guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rajab guddi googu mu feeñ ci la sun borom subhanahu wa taala rañaane woon Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu ko yàlla tegee ay jafe-jafe ba ko bégal walla dalal am xelam ngir génnee jafe-jafe yooyu ci moom Cheikh Mamadul Fadal di doomi soxna Awa Buso soxna Awa Buso di doomi Serigne Busoobe Serigne Busoobe di doomi soxna Astawaalo mi nga xam ne moom moo ñu soxna jaaratullahi Mariama Bousso mi way juru Serigne Touba Serigne Fallou feeñ guddik àjjuma di ñaar fukki fan ak juróom-benn dëppoo ak ñaar guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar ci rajab feeñe ko ci dëkk bii nga xam ne moom la sëñ Touba tudde jàmm gën muy kërug jàmm di Daaru Salaam aw turamit sëriñ Serigne joxe ko mu tudd Mouhamadul Fadil. te sun borom subhanahu wa taala waxoon na innal fadla bi yadillah ngëneel ci loxol yàlla la nekk waaye yu'ti man yasha moo koy jox ku ko soob wax nañ ne Cheikh Mamadou Fadal siiw na ci ne bi Sëriñ Tuubaa di taalif ma fatihul bisri bayitam yooyu mu tudde yow ma rajab biñ ko waxee na ko soxna aw bu am na gan la ko wax tam tàmbalee ci waskur urufiya bi xadri saati fi mathi man xaraba bi lazaati ba wayee jeex kon yàlla jox na ko juddu bu rafet jox na ko ay bokk ndax maamam ji nga xam ne moo di sëriñ bu soobe bi yàlla dogalee mu war a dem ba taxawal kër te doon wàlli yu mag dafa ñaan yàlla na ko bala maa samp kër damay dangay warlonteeg man yàlla na ko loo bëgg ma warlonte kook yow mu ne ko danga may warlul doom juma jur wàlli yu lay doon doom juma ma jur wàll yu lay doon juma ma ca am loolu ci la ko sun boroom fekk ba tax mu samp ci kër te kooku ca la soxna aw bu sa bàyyi ko kon mën nañ ne darajey waliyu soxna aw bu sa am na ko te loolu sëñ Tuubaa waxoon na ne su ëllëgee yow mal am lu ma mën ci góor ñi aw bu sa dana ko mën ci jigéen ñi kon loolu màndarga mu réy la kon nag kooku sëñ Gànna bu dee ci ab juddu yàlla jox na ko juddu bu mag sëriñ tubaa ak soxna Awa Bousso meññi ko mu ganee àdduna it ci daaru salaam sëñ daam Abdourahman loo jàngal ko alquran maam Thierno àggaleel ko xam-xamam àggaleel ko it alquranam àggaleel ko xam-xamam mu tërbiyewoo ci loxol sëriñ tubaa ca gànnaar ak ca Ceyeen Jolof ba ci mujjug njaareem lépp Cheikh Mamadou Fadal liggéeyal ko sëñ Touba yooyu mu dajale ci sëñ nag tax ko mu amee jikko joo xam ne. bu ñuy tagg nit ca jikko lañ koy taggee ma bëggoon rek bàyyi la nga nuyoo ak bokk yi ñëwal ma ci Cheikh Mahamadul faadal ak ay jikkoom yi nga xam ne yàlla jox na ko ko sëriñ gànna sëriñ Fallou ni nga ko waxee euh, Cheikh Mahamadul Fadal mi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee day boroom jikko ju rafet nekk it borom melawu sell euh, mu di koo xam ne wax nga léegi euh, càllalaam wax fi mu jaar ci. bokk yu sell yu baax yooyu waaye loolu ñuy wax naan euh, sërifun bun sërifun loolu yàlla da ko saxal ci moom mu nekk koo xam ne sërif la ci wàllu kër euh, way juróomu góor muy cheikhul xadim waaye sërif la it ci wàllu kër soxna awa buso koo ci toppe silsilaam rek dafay dallu dall ca fatimatu bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa te loolu moo koy firndeel loola it mën nga caa xam kon ne ndax boo ne sëñ Touba mooy sëñ Fallu ndax ndeyam di baayam baayam ay nijaayam kon boo tuddee soxna Awa Bousso tudd nga sëñ Fallu euh, boo tuddee Serigne Touba it tudd nga sëñ Fallu ndax lool la ko yàlla defal ci jagleen mu di koo xam ne it di nga ko waxee léegi boo xooloon ci soxna Awa Bousso boo ne soxna Awa Bousso bintu Ahmadou Bousso bintu Ahmad ma tabara buntu ah bun Ahmad Ali ibnu Ousmane ibnu Ibrahim ibnu Ismaila ibnu Zakaria ibnu Ismaila suleymaan ibnu xasan ibnu ibrahima bun abdullahi haaruna bun muhammad bun abdul fatah bun muhammad bun ali bikri bun muhammad bun abi bakrin bun aliyin bun muhammad bun ali bun xasan bun muhammad bun abdul qadir bun muusa bun yaxya bun zahidin bun daawuda bun muusa al jawani abdullahi al muhdi sayidina xasan bun sayidatuna fatima bintu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li wolof yi di wax wala waykat yi bu sariyifun bun sariyifun sariyifun bun sariyifun tuuma jubluwu la loolu mooy tegtale lool boo toppee ci wàllu askanam yëpp day dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci sayyidatuna Fatima lay day dellu mu di koo xam ne it dafa jël ci eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem tedd ngay jikko yëpp ba tey ji jikkoom ju rafet ak meloom wu sell moo tax adduna bépp ëmbal ko cofeel loola it buñ ca xoolee danañ fekk loo xam ne Euh, ñan na ci bindkat yi bind nañ loolu misaal ko ci ñu wax na sëriñ Fallou yi euh, dafa nekkoon yërmande ci mbindeef yëpp waaye nekkoon seen njariñ te la yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne alxalqu yaalu la ahabuhum ilayya anfaahum mbindeef yi ñooy njabootu yàlla ki ci gënal yàlla mooy ki leen gën a jariñ te sëñ Fallou jariñ na nit ñi ci alalam jariñ leen ci xam-xamam jariñ leen ci ci ci ci léppam léppi sëñ fallu rek jariñ na ci mbindeef yàlla yëpp waaye nekkoon it rahmatan lil alamin jooju nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko suñu borom yónnee wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin mooy dama laa yónni nga nekk yërmande mbindeef yëpp waaye sëñ Fallu it yërmande mbindeef yëpp la woon mu nekkoon koo xam ne it la ci jëkk mooy dafa nekkoon ko xam ne saadiqul iraada maanaam ku dëggu woon ak pas-pas la waaye ku dëggu woon ak taalibe la ku bëggoon Serigne Touba la nekkoon koo xam ne raxu raxuufan bi naas rahima nekkoon ku yërëm nit ñi nekk koo xam ne ku daan ñeewante nit ñi la nekkoon koo xam ne ku daan jéggale la nekkoon ku nooy nekkoon ku yaatu ab dënn doon ko mënoon a baale moom Serigne Fadilou nekk koo xam ne it ko xajoo woon ñëpp la euh, lu ci nekk it danga koy fekk ci biir ay ay ay waxam moom ndax boo nee mbooloom taalibe gu dëggu la te te xam nga melokaan yu sell mu ngi dellu ci melokaanu Murid Sadiq googu nekkoon ci moom te mu jaay lépp loo xam ne am na ko ci digganteem ak Serigne Touba euh, jaay ko jënde ko ak ak ak taalibe loolee melo yu mel noonu. waaye nekkoon nit koo xam ne jaamu yàlla la bu daan wéetal boroomam te nungu koo jaamu nekkoon ku ragal borom bi subhanahu wa taala ko doonoon koo xam ne it li yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne waxtu wu ne dinaa saxal ak tuub jëmee ko sama borom Serigne Fallou it sañ-sañ baak jege yàlla ga lépp lu mu mën a def dafa nuróog Serigne Touba aw doxin xam nga Serigne Touba fi ne bu tuddee dara sax loo xam ne ak may la gu rëy gum am la muy tekkee wet gare da ngay yëg ne da delloo ci sant boromam gis na bi muy wax bismil ilahi yan mu luhaayi bila manaahi wala tey waaye hamdan li rabbi nga xam kon bi bi mu waxee may na ko may yoo xam ne day yokk waxtu nekk it waaye gis nga lam ci delloo siwaat mooy maa ngi sant yàlla subhanahu wa gis nga it Cheikh Amadou Fadal tey boo demoon xool ne ab la cër ya di rëy waxtu wu nekk yaa ngi koy fekk muy delluwaat ci boromam da koy fekk ci ay mbindam inni ila rahmani thumataabi min kulli ma yufdi ila ataab subhanahu min xaafiri dunubi aklim bihi min sairi uyubi tubtu ilayhi tawbatan nasuha wa innahu yastaru lil xabiha xoolal fi mu toll te nga xam ne moom la sëñ Tuubaa def taxmis xool waxin wi mu ciy wax ni mu nuroo waxinu Sëriñ Fallu nga xam ne cërub yàlla bi li muy rëy rëy waxtu wu nekk mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wàccewaat boppam ci kanam boromam subhanahu wa taala di lu màggu yàlla gi di xam ne borom bi subhanahu wa taala mooy mooy mooy xaadiru ala kulli shay'in loolu yi day feeñ bil bu set ci biir biir ay waxam ak i ak i meloom waaye mu nekk koo xam ne it euh, waxtu wu nekk gis nga li muy delloo ci ci ci sëriñ bi nga xam ne meloom feeñ ba muy ñaanit rabbi bi xormatil xadimi ahmada lixfir dunubi waxaali ahmada nga xam ne tawasul boobu muy def noonu sëñ Tuubaa defee saw tawasul muy defaat suul di dellu di dellu ci euh, jëmmi euh, Sëriñ Tuubaa waaye mu nekk koo xam ne it ku wakkilu ci mam la te xam nga tawakkul ak tawakkul bokkul sëñ Fallu dafa wakkilu woon ci yàlla loolu it feeñ na ko tey xoola ba muy bind xasidaam gi nga xam ne tey jii jamono jëpp mën nañ koo yóbbaloo ngir fi àdduna toll nga xam ne tawxiid yi ci nekk wéetal yàlla geeg doylu ko li xayrika la n ilaahil wara amra wa ma in lana illa ilayka dahra walasnaa naqaafu durru min siwaaka la kadalika la narju siwaa yusrikum yusra lii doyoon na rek ñu génn ko ci àdduna wax ko mooy du ma du ma maanaam ku yow yàlla mii borom bindee fi du la du ma la jàmbat mel ni mbir man Serigne Fallou ndax amuñu benn wéeruwaay bu dul yow yàlla diirub jamono amuñu benn lor bu ñuy yaaka bu ñuy ragalit bu bàyyi ko ci kenn ku dul yow xam nga loolu dellu na ci li sëñ Tuubaa la su axaafu dura xalqin baxdama fawaltu amriya ila rabbi sama mhm. am sëñ Tuubaa dane du ma ragal benn lor bu bàyyi ko ci mbindeef ginnaaw bi ma wéeroo ci yàlla kon nag sëñ Fallou it na ko nun duñ wéeru ci kenn duñ ragal kenn ku dul yow xamal ko it ne ko adduna nag soppiku na jamono metti na waaye jamono tar na ci nit ñi waaye suñu borom nag yaay ki mën a andi ak jàppandal ak yombal ci kaw nit ñi ndax nit ñi fiy ñëw kat ñii ñoo fi ñëw mu ne koo xam fa min mustakin faqra wa mustakin bala wa mustakin daynan wa saminu ahra koo xam ne day ñëw am bala wala ko yori bor wala koo xam ne ak wéradee ko dal kon fa da fa kun daafian saq kon delloo na ko ci yàlla wane ne kon yow suñu borom na nga nekk ki nga xam ne yaay jañ jàmbat yëpp nga xam ne ñi ñëw di jàmbat ak ñàkk wéradi te ëmb leen ñoom ñëpp ci ñeewante ak na ndax yaay buur bi nga xam ne yaay ku màgg yaay ki xam yi nëbbu yëpp yi làqu yëpp yaa ko xam waaye nag laqat daaqa xaalul waxtu wa sadda amruhu farij ilahi karbana wat bax durra loolu mënees na ko jëfandikoo wane ne kat jamono xat na mbir yi tar na waaye yow yàlla borom bi subhanahu wa taala na nga dindi njàqare yi te joñ lor yi mu daw sori kon nag na nga barkeel ci njabootu sëñ bi waaye njab barkeel ñun jiine te lépp loo xam ne lu jafe woon la nga nga nga yombalal ko yow borom bi subhanahu wa taala loola la muy wone rek mooy euh, melaw yu sell yi nga xam ne euh, ndax li jiitu ci melaw jullit mooy mu nangu boromam gëm ko wéetal ko te loolu moom la Cheikh Mamadou Fadal def jox léppam euh, boromam jox léppam Serigne Touba mu nekkoon ko xam ne moom Serigne Fallou dafa nekkoon boroom xam-xam waaye nekkoon it koo xam ne ku mënoon a bind la waaye nekkoon it borom xel mu ñaw nekkoon koo xam ne ku tàllal ay loxoom la ku yaatu ab dënd la waaye nekkoon koo xam ne ku ku def atawaa don la mooy ku toroxlu wàcce woon boppam moom Serigne Fallou ba ñëpp ngeme ko waaye mënoon koo jege doonoon ko suufeel bokkam Serigne Fallou it doonoon koo xam ne jikkoom ji yaatu taxoon na ba kenn mënta xam ki ko jege ak ku ko sori lu dul ka ko wax maanaam aji ki ko jege mooy wax jege naa ko wala ki ko sori wax na sori naa ko waaye ñëpp mel na mbalaan mi la leen yiiree woon moom la leen moom la leen nëbbee woon moom euh, Cheikh Abdoul Fadal mu nekk koo xam ne it moom Serigne Fallou euh, jikko yu rafet yooyu ko suñu borom dajaleel ak tedd nga yu rëy yi nga xam ne nekk na ci moom waxtu wu nekk taxoon na ba fu waay sa bàyyi ko ci adduna bi jëm si ci moom da ngay ñëw am foo ko fekk lii ñuy wax ne jikko yu sell yi kum daje ci yow suñu borom yëkkati la mooy lewet toroxlu tabe rafet jikko Sëriñ Fallu ku lewet la woon koo xam ne moo waral da nga daan maam fenn fu ne nit ñi daw jëm si ko ñëpp bëgg ko waaye lewet gaa ko waraloon waaye ku suufeeloon boppam la koo xam ne kenn ku nekk xajoo woon na la kenn ku ne yaataloon la ci boppam waaye nekkoon ku rafet jikko rafet jikkoom nag moo taxoon mu mane woon ak ay jàmboor mane ak ay bokkam ma ne sax ñu nekkuloon ay jullit jikko ju rafet taxoon sëñ Fallu mënoon ko waaye bu dee tab nag kenn mënu caa jot Cheikh Amadou Fadal ndax ak tabam yaatu na ci adduna bi ba wasaaroo ba képp ku mas a jàmbat bàyyi ko fi béréb ak lu mu mën a doon boo ñëwee jàmbat ko Sëriñ Fallu loola loola faju loolu it mel na ni am na ko ko bind wax ne yabnul xadimi lazi ma xalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaqatuhu maanaam sëñ Fallu do sëñ Tuubaa am na doom ju ñuy wax Cheikh Amadou mooy koo xam ne kenn mës a ñëw ci ëttam fa yitte te amoolu kawe sa njort maanaam du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga giijal fallu xaniyu la mu ne mooy koo xam ne maa xalla saatuhu aatin yuraajihi illa salla faaqatuhu maanaam amul jenn yitte jenn yaakaar jooy yaakaar tabbi biir kër sëñ fallu nee na te ba ngay dem amalu ko kawe moo xam wéradi la nga wér moo xam ñàkk la nga am moo xam jaaxle la mu wuññi ko waaye loo ma sa jàqe sa xar kanam ñëgg nga tabbi kër sëñ fallu booy génn da ngay ree ak ak yitte joo mën a indaale ju mën a doon mu Euh, di koo xam ne dafa nuru Serigne Touba ci jikko yu rëy waaye nag doon nu Serigne Touba waris sa cheikh fi ilmin wa maarifata man sa la si la yuri fii ka waarisuhu yaa doon nu Serigne Touba mi nga xam ne doon nga ko ci xam-xam doon na ko ci xam yàlla waaye yaay xalifa bi nga xam ne ci lu nëbb ak kilo lu feeñ dalal nga xeli nit ñi yow mi nga xam ne sa ëtt yaatu na yow fan lu Mbacké yaay ku tedd ki nga xam ne yow la ñuy yaakaare ak war ak ràmm ak xettaliku ak mucc yow Serigne Fallou Mbacké yaay ki nga xam ne it dundal nga sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yow it fàtteloo nga nu mépp mbir moo xam ne diisoon na ci noonu ndax bi nu Sëñ Tuubaa wonee ginnaaw jamono jafe ci noonu diis ci noonu fàtteloo nga nu ko yow yow Sëriñ lu Mbakke waaye yaay ki nga xam ne it sahita fii daarati shawqan saaliqa euh, sahita fii daarati shawqan li xaaliqiha abdan lahu muxlisan bani ibadatuhu yaay ki dëddu adduna woon ko ginnaaw lim maye ci ay wata lim yóbbu ci makka ci aw nit lim fay ci ay bor lim xetli ci aw nit tabax jumaa ju tol noonu te bi nga fi bàyyi ko li nga fi bàyyi bu ma tee 400000 ci la ci la toll nga xam ne sa biir njabootu bopp.